bilaay mooy baadoola sëñ Daouda yaa baadoola bilaay mooy baadoola sëñ Daouda yaay baadoola bilaay mooy baadoola ñëpp war wóoro te yaay digle koor gi fii ci koñ bi boo xëyee sa kër koor ka fay tàggoo waaye balaa bi dee nga dog koor gi euh, Ndiaye waaw waaw koorug daaw ga uh-huh. laa gis loo xam ne saa bët bii mu ci tegee damaa yéemu rek. mbaaw mbaaw bëri na looy fekkee rek. yee. yow ma bëri nga looy fekkee. maanaam xam nga. la tax mbir moom ma fekke ko. Uh-huh. Euh, damaa jóge woon côté Pekes gii. boo boori Baba Garage. waaw kay oh. léegi bi ma jógee côté boobu. léegi wata gi moo ma ëndaale ndekete oto bi ay nday la yeb. nday la ay nday. maanaam xaw ma xaw ma xaw ma gone gu doon am doom ca dëkk ba la xaw ma ndaye ñëwoon ca. ah waaw ay wax day àgg. waaw maanaam bañ fa waree départ daal. Mhm. ñu jox leen euh, euh, caagri. ñu xadde ko. lekk caa lekk lekk lekk lekk lekk ba seen biir ba biir yi ndey yi ne nii. waaye foo maa ngi ci wata bi. Ah, ci wata oto bi moo ma ëndaare. Ah. bul toon mooma du ma ñëw. Mhm. naka la ñu agsi ci montage bi. Mhm. montage bi téye ñu. di eh, dégg nga maam alkaati ba di di di xulóog eh, eh, emprunté ba. support ba wàcc di atte dégg nga ndey yi nag seen biir yi yëngu. ëpp te law. benn siwa bu fa nekkoon daal moom la nu yóotu ku wàcc jox sa morom wàcc. ku wàcc jox sa morom wàcc ku wàcc jox sa morom wàcc ba siwa ba raase ñu tëj. moom nga waay. li ngay wax yaa ngi ci seen yàlla suñu bopp. waay maa maa toog ci oto bi man nag maa wàcc wut. waaw bu dee dëgg kay moom ñu amoo bàkkaar moom bu dee dëgg la. dégg nga naka la naka lañ pare ci siwa bi ne ko buux ci ron baa bi naka aksi ñu agsi ba mu wàccee leen oto bi nag ndeysaan euh, chauffeur bi dafa baax. ne ne ne ma góor gi kat euh, di danaa la yóbbu ba nga xaw a jege sa sa côté kan ma ne ko waaw. Ah, bi mu wàccee ndey yi ba pare. waaye daal. Ah. emprunté bi daal naka lañ agsi ba mu war maa wàcce. waaw emprunté bi daal di koy ubbi. ubbi lan ubbi maanaam ko ci suuf bi. dégg nga ubbi ko ndeysaan daal di gis maanaam maanaam maanaam maanaam maanaam. Oh. ay njaay ba mu ko jëm. xoolal oh, soo maa ngay balance. mu waay. Oh, ak kere ji mu yëngal ak na kopp foofu mu way mu tàng naan ko oh. tàngaat naan maa tàngoon naan yow kan man nii te teere ko yàlla tere emprunté bi daan naan ba biir bi fees ah. nii la fa demee <laughs> day dox du dox du dox du dox ba yem ca. muy la di Ndiaye. maa fekk mel ni mbaam moo a ne dafa dee ba am am na ko. ah Ndiaye fekk yàlla. waaye yéen bu bu ko yëngal. kekkee la muy ba ko mu yëngu ja. ba ko rek ma ne. ñu wax sax di wax ah, ba ko rek ah ah meng meng. ba leen ko rek ah ah ba ko ba ko rek ba jaar nañu ak moom béréb de <laughs> ah, da ngeen a da ngeen a fàtte. ko rek. continuel mbaam mi. moom sax damay bàyyi jëm ca moom mais. ah Ndiaye Ndiaye. man ah teewuma de. damay bàyyi mbaam mi da jëm ca moom mais. ah da ngeen di jëm ca moom. waaw baax na jëm leen ca moom. jëm leen ca moom. gis nga kii wóorut defut dara mën naa affronter dof bi ñun na dañoo woor ñun. kii jigéen ko tax a dof. gis nga mbaw. waaw damay bàyyi mbaam mi. te bu ko engagé. bàyyi bàyyi jàmm bi nee na day wax. ma ne Ndiaye déglu ma la. waaw. waaw yéen a ngi yéen a ngi. la ilaha illallah. waaw waaw. dégg nga rek ok. ah ah. ah ak baax rek ni nga koy gisee nii. gëfulaa bi. ah eh, ah eh, Mbeng Mbeng bu fekkee ni problème. Mbeng jëlal bu fekkee ni problème. Eh, Mbeng naa la laaw Mbeng naa la waaye waaye. Mbeng jëlal Ndiaye. ah ah jàppal Anja Anja ah ja ah, ah, xaaral ma ci xol. Ah. jàppal. waaw yow waaw yow yow yow ñu doon wor. waaw Ndiaye. ah wor. Ndiaye jàppal bilaay wor rek. ah wor ah Dubaay. Mbeng du ngeen ko naan ah. bilaay mooy baadoola sëñ Mbow te yaay baadoola bilaay gi fii ci koñ boo xëyee sa kër koor ka waaye balaa bi nga dog koor gi